gën a bëri mooy bu njëkk bi mooy samedi bi nga xam ne dafa précédé vote bi kenn waru ci campagne donc ñun dañu war a moytu di ci couvrir ay ay événements di ko di ce jour la ndax boo ko defee dañ koy def dans les revues de presse mu nekk campagne loolu baaxul erreur bi gën a garaaw nag mooy euh, résultat yi di ko jël fu nekk dem ci état major parti di jël ay résultats foofu di ko diffuser résultat Sénat ko joxe conseil constitutionnel Sénat et cetera mais doo dem rek kenn ñëw rek surtout en rajo da nga koy gis lu bëri bëri kenn ñëw rek ne la waa ñun suñu kii ngi def nañ suñu toto suñu parti mii moo gagné fii gagné waaye parcelle rek nga commencé diffuser loolu day yàq liggéey dafay yàq liggéey beneen bi am importance trop aussi mooy euh, da ngay jox kàddu ku voté ba pare bu voté ba pare mën na wax ne urne amul. mën na wax ne bureau de vote bi ubbiwul à temps yooyu c'est des manquements qu'il faut signaler.